Human Appeal International, ses 25 ans de présence au Sénégal. Conformément à sa mission d'assistance humanitaire, l'ONG s'est toujours alignée du côté des couches vulnérables pour leur permettre d'améliorer de manière significative leurs conditions de vie un appui à travers des interventions multiformes, allant de la prise en charge des orphelins à la réalisation des infrastructures hydrauliques et socioculturelles. Fidèle à sa tradition de solidarité et de partage, pour ce mois béni de Ramadan, l'ONG n'a pas lésiné sur les moyens en dépensant plus de 102 millions de francs CFA pour venir en aide aux personnes démunies. Le nombre de personnes qui ont bénéficié d'un appui de Human Appeal International est impressionnant. En effet, pour le seul jour du démarrage des activités Ramadan, 1168 personnes ont pris d'assaut le siège de Human Appeal International à Petit Des personnes qui sont toutes reparties avec un lot de denrées alimentaires composées de riz, de sucre, de lait, de dattes et d'autres sont reparties avec des habits de fête. Une distribution estimée à près de 28 millions de francs CFA pour démarrer la campagne. ñi nga xam ne ñun yaay ñun amuñu seen fay yàlla mi nga xam ne ñoo am seen fay yàlla nañu leen yàlla fayam nga toog ñu woo la ne la kaay jël dafa neex ci xol waaye yu mel amuñu seen fay mention spéciale. Après la cérémonie de lancement qui a rendu le sourire à plusieurs centaines de personnes, les équipes de Human Appeal International ont parcouru le pays pour s'arrêter dans villages. Là aussi, plusieurs lots de denrées alimentaires ont été offerts et des repas servis à des ayants droit. Au terme de cette campagne hivernage Ramadan 2017, Human Appeal International a fait bénéficier de ses denrées alimentaires et repas gratuits à plus de 29 000 personnes. Une générosité gratuite qui confirme tout le bien que les autorités sénégalaises pensent déjà de cette ONG au service des couches Kuraku, kuraku, kuraku, kuraku, kuraku, kuraku, magum jëmm mu toog ba ndoo ko jot yow nga waaxu ñëw berndeel ko berndeel boo xam ne bii bu mucc ayib la mu lekk ba kolam fees ni alhamdulilahi rabbil alamin war na sant yàlla war leen a sant ñu dajale julliti yàlla yi nga xam ne soxla woon nañ ko aajo woon nañ ko ngir lan ñu ànd ak ñoom dogu ñu dog seen koor kon tuyaaba ji suñu borom digal ci képp koo xam ne dogal nga benn jullit kooram yal na la ko yal na leen ko suñu borom defal